incha allah le premier août kon ñu kenn ku ci nekk doxiwaat sa soxla ci jàmm ak salaam. présenter nos excuses au peuple sénégalais euh, dire à chacun et à chacune notre gratitude et notre reconnaissance à l'endroit de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. et dire tout simplement que ce jour fait partie de ces jours euh, honorables, symboliques, que le Seigneur nous a gratifiés pour rendre hommage déjà à sa toute puissance, mais aussi et surtout euh, réitérer ce besoin important qui nous lie et qui devrait être cette nécessité impérieuse d'avoir des relations cordiales, des relations saines entre nous. Et je pense que Serigne Moustapha Abdul Khadr l'a rappelé de fort belle manière toutes ces, tous ces bienfaits pour ceux et celles qui chevillent à leur pratique au quotidien cette règle élémentaire de bienséance. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Et je pense aussi que nous sommes directement interpellés, nous, force vive de la nation, nous acteurs politiques, parce que c'est aujourd'hui que nous débutons la campagne électorale. Traditionnellement, on voyait cette campagne émaillée de violences de toutes sortes, physiques, symboliques et même psychologiques. Et je pense que c'est heureux de constater que nous allons démarrer cette campagne qui coïncide avec ce jour de Tabaski et nous lançons un appel solennel à l'endroit de tout le monde de chacun d'y aller avec beaucoup de lucidité, avec modération, avec pondération, pour qu'au soir du 31 juillet, qu'on puisse permettre au peuple sénégalais de faire un choix réfléchi et que le 1er août, Inch'Allah, que chacun puisse vaquer à ses occupations.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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضهاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب